mën nañ koo wax ne ko ah yow de koor gee tax nga solo nii tey yow de koor gi nangam muy bañ ñu wax ko ne ko koor gee la tax a yiw mu far yiwa di ci weeru koor loolu seytaane la liggéeyu seytaane la il nga dagg buum googu dox sa digganteek nit ñi ci jaamu yàlla asalaamualeykum wa rahmatullahi wa mbokk yi seetaan Pulsi TV ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaar bu baax di leen baalu ak ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñaan ko mu nangul ñu sunu koor amaan nañ mbégte lool ci dellu siwaat ak yéen ci seen jotaay bii di ndaw ñi ak koor gi di leen ndokkeel bu baax di békki ni ngeen ñuy toppee laaj bi nga xam ne moom lañuy ñuy jéem a tënk tey day dellu siwaat ci taxawaayu ndaw ñi ak koor gi ba léegi ndaw a ngi nii loo xam ne nee na moom daal mën naa góor góorlu gépp góor góorlu ci koor gi waaye julli da koo të maanaam moom daal mën naa woor yi ñu moytandikuloo yëpp mën na koo def waaye julli jafe-jafe boobu la am jafe-jafe julli ma ne ko doy sëkk sëkk jafe-jafe keneen nekk ci wet gi moom ne moom moom même bu dul weeru koor loolu da koo tëwoon waaye rawatina ci weeru koor maanaam koor gi moom la du julli am koo xam ne moom da du julli completement ñaari laaj yooyu la ki nga xam ne weeru koor moom dana julli waaye ku weeru koor dong lay julli ak ki nga xam ne même bu dul weeru koor julli da koo të waaw kay tontu li mooy julli yombut waaye dafa yomb ci ki mu yomb mooy ki nga xam ne ruuxam mi ngi dund moo tax nit day tànn ñi muy àndal tànn fi muy toog am na jotaay boo xam ne boo fa toogee même boo tàmmu doon julli importance bi koy jox dana la yóbbu ci nga tàmm ko am na foo xam ne boo fa yaroo ak nga tàmm faa toog même boo tàmmee julli dana mujj yàgg dootoo ko tàmm ndax da ciy wéet loolu mooy benn bi ñun ndaw ñi ñu bari ci ñun daanuñu julli waaye weeru koor danañ bëgg a julli waaye léeg-léeg nit ñi ñooy dox sa digganteeg julli ndax bu dee jigéen bu xëy see biro ba sol col gu jot mën nañ koo wax ne ko ah yow de koor gee tax nga soloon yi tey yow de koor gi nangam muy bañ ñu wax ko ne ko koor ge la taxay yiw mu far yiwa di ci wéru koor loolu shaytané la liggéeyu shaytané la il faut nga dag buum gogu dox sa ak nit ñi ci jaamu yàlla daanoo julli waye wéru koor bëgg nga julli jugal nga lal julli même buñ la waxé ne la koor ge la tax di julli waxal waaw koor ge ma tax di julli té ñaan yalla mu saxal la ci nga continuer di mëna julli loolu moy li gën bu dee ci atté nak ki nga xamné dafa woor ba noppi te julliwut tegtalewul ne ñàkk julli gi da yaq kooram gi koor gi baxna waaye am na bàkkaaru ñàkk julli ndax koor koor la julli julli la waaye nag bàyyi na farata bu rëy boo xam ne moom mooy faratay julli ba noppi di woor kon ñàkk na tiyaaba ju rëy rëy ci bis bi waaye nag ci koor ci sariya du bis buñ koy wax da nga koy fay wala danga koy nàngam waaye ci aqiqa moom yëg yàlla mi ko doon woorloo moo desati yëg yàlla mi ko doon def mi ko doon woorloo moo desati ndax koor li muy jàngale mooy ragal yàlla laallakum tattaquun yàlla nee na woor leen ndax xëy na ngeen amee ci ak ragal yàlla yàlla nañu ko yàlla defal te yombalal ñu julli ndax yombut ci am naafiq yonent bi nee na wala alquran nee na julli naafiq boo ko nee jógal julli rek xaamoo kusaalaa day tàyyal jóg julli du ko yomb yàlla nañ ci yàlla musal canta ngërëm ñeen na leen ba ëllëg ak jàmm ci beneen jotaay incha allah